xaaj bu njëkk bi ci ñaari xaaj yi mbooloo mi tànn na ñiy toppatoo dund mbooloo mi tey dinañu waxtaan ci mbiri ñi ñu jëkk a tànn ngir ñu toppatoo dund mbooloo mi ñiy toppatoo dund mbooloo mi ci mbooloo mi lañu war a bokk mbooloom ñi gëm di gën yaa te jamono jooju ndaw yi ñu ngi dëkkoon ci Yerusalem ñuy jiite di sàmm ak a jàngal mbooloo mi ndaw yi ñooy nit ñi yéesu tanoon bi mu nekkee ci àddina yéesu jàngal na leen yónni leen ngir ñu nekk ay ndawam ci àddina si wax na leen ñu jàngale te jiite mbooloo mi ngir ñu topp njàngalem yépp ñu teg ci tuuti ay rëq-rëq am ci seen biir amoon na ci seen biir ay yawut yu gàlli yuy jëfe ni grek yi grek waasola dañu bay won seen làkku yawut ak aada yi waaye amoon na ba tey ay yawut yuy làkk yawut yawut yuy làkk grek tàmbali di xultu ñu naan seeni jigéen yi seeni jëkkër kenn dimbaliwu leen noonu fukki ndaw yi ak ñaar dajale mbooloo ma yépp ñu ne leen ñu tànn juróom ñaar ñuy toppatoo dund mbooloo mi ñu ne leen ñooñu war nañu am seede su rafet fees ak xel mu sell mi te ànd ak seen sago war nañu toppatoo mbooloo mi ci mbiri àddina su ko defee ndaw yi dinañu mën a jëfandikoo jot gi ñu am ci njàngale ak ñaan. mbooloo mi tànn juróom ñaari nit. léegi ma laaj leen. benn. naka la seytaane di jéem a fànqe liggéeyu mbooloom ñi gëm yeesu. dafay jeñ ñi gëmul ñu fitnaal mbooloom ñi gëm def na itam ba ñi gëm di xeex ci seen biir ñaar lan moo doon liggéeyu ndaw yi seen liggéey moo doon jàngale kàddu yàlla gi ñaan ak jiite mbooloo mi ñett ci seen xalaat kan la borom bi bëgg muy jàngal seen mbooloo mi kàddug yàlla ak di leen jiite. ñi xam kàddug yàlla gi te déggal ko ci doomi réew mi mën nañu jàngale te jiite mbooloo mi. ñeent lan mooy liggéeyu ñiy toppatoo dundu mbooloo mi seen liggéey mooy dajale alal ji ko ñi nekk ci soxla ñooy dimbali nit ñi bokk ci mbooloo mi ci seen jafe-jafe